bàyyi gisoon ni nga ñaawee fi mu ne <laughs> damaa defoon da muti doom laa yaakaar ñi ñu lay jiñ naan say doom la dama defoon duñ say doom waaw damaa defe rek boo juróon ba léegi téye nañ la kay xanaa <laughs> baaxul ab baaxul li tax ñuy aaye dorog xam naa ko baaxul am na nu muy bëree ci sa bopp bi rek surtout jamonoy tàngoor wi jamonoy tàngoor wi moom daanaka dorog bi ci lay gën a def effet quoi <laughs> maanaam da ngay gis ñaar ñi nuyo sax nga defé na dañuy xex na xex bi ci pale bi xeex wala ñu doon dóorante ay kurpañ ndax ay bourse yi ñew ñaar ñu nekk impo di encaisser ay milliards musuñ cee xuloo musuñ ci xex ñu dem ba ag ci pale bi di xex ci pale bi lool nak ëpp na commissaire <laughs> commissaire nga yaakaar du dorog bee yëg trafic drogue bi nga doon def nga yaakaar loolu moom monte ci sa bopp bi nga gis ay nuyoo gis kaf gis reetaan nga defee ne xeex la danga koy jaawale de <laughs> waaye yaakaar ne yow daa juuti ci yow di tourné nii adduna bee tourné quoi drogue <laughs> da nga koy bàyyi gisoo ni nga ñaawee fi mu ne <laughs> damaa defe ne nga muti doom laa yaakaar ñiñ lay jiñ naan say doom la damaa defe ne duñ say doom waaw damaa defe ne boo leen juróon ba léegi téye nañ la koy xaraa